lii nag moom la ñuy tuddee dëmmu rey la ba noppi jaale la mbokk internet yi mbir mu doy waar mi nga xam ne mi ngi continuer di am ba tey fii ci suñu mim réew mën nañu kat guleet ñuy faral di gis li ni mel. bile yoon nag gis nañ ki nga xam ne rek moom mooy président de la république rawatina nag avec collaboration ak ki nga xam ne moom mooy ministre de l' intérieur daal di jox benn invitation bu nga xam ne rek dafa jëm ci li nga xam ne rek moom mooy quatre avril yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal. ñu di sa invité nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi pour nag ñu fa yéene assister li nga xam ne rek moom mooy ndaje moomee ndaje moomee nga xam ne nag chaque année dañ koy amal fii ci diwaanu Sénégal muy fête de war a tombeek le 4 avril bi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal gannaaw nag l'invitation bi nga xam ne rek ministre de l'intérieur daal koy mujj jébbal ñi nga ne rek ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi pour nag fas yéene assister li nga xam ne moom mooy ndaje moomee mbir nag daal di say jota xew gannaaw ñoom ñi nga xam ne rek ñooy nday mbi liggéey di waay yeewi askan wi gannaaw bi ñu daal jot li nga xam ne rek moom mooy invitation boobee ñoom it ci lañ daal di regroupé wu daal di jot a xamle kenekat mbir moomee nga xam ne rek mbir moo xam ne dafa mel ne naqara sax lañ ko mën a tuddee mu yëpp invitation bu nga xam ne rek yaa ngi ciy woo sa moroomu nawle sa moroomu nawle bu nga xam ne nag chaque jour booy xeex ak moom da ngay nangu yatam daal di yat boole koog yatam dóor ko ba muy bëgg dee ñoom ñi ñii nag di waa yeewi askan wi daal di jot xam ne que ni nag mënuñoo dem te képp koo xam ne sympathisant nga ci yeewi askan wi sax ñu ne la kat na nga toog mayuñu la sax ngay dem naan da ngay jéem a may doole la 4 avril boobee nga xam ne rek fête de l'indépendance lañ koy tuddee fii ci Sénégal nekkat indépendance amul ci réew mi di Sénégal ba ñu koy célébrer ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa yeewi askan wi daal di kàddu yi ni mel daal koy adressé direct ki nga xam ne rek moom mooy président de la république ne ko kat bu fekkente ne rek bëgg na ñu teg carte gi ci table ji na daal di def le tout pour nag ñu delloo si dëgg ci fi nga xam ne rek moom mooy penc mi ñu daal di delloo si dëgg ci biir réew mi ne loole bu amee mën nañ ne lépp lu nga xam ne rek état woote na ko ñoom ñii di waa yeewi askan wi dinañ sol seen dàll te tamit dinañoo seeni sympathisant ñu daal di fas yéene dikk nag assister li nga xam ne rek moom mooy ndaje moomee wante bu fekkente ne nit dangay xeex ak moom te yow booy dóor doo xool fi ngay dóor wante fam la arrangé rek ngay xool dóor ko ba muy xool benn côté te boo jugee na ko kat dama bëgg ñu bokk benn néeg bu ñu fanaan kookee bu dee boroom xel la dina bàyyi xel bu baax a baax kene kat legetu kase naxu li bëy loole kat buñ ko waxee xel ko dina dem ci li nga xam ne rek moom moo passé di jëf ji nga xam ne rek moom lañ teg ki nga xam ne rek moom mooy leader bii di Ousmane Sonko kon nag bu demee ba ñu ne kat dañuy wut lu nga xam ne rafet la ñu baree bari jàpp ne loolee kat nekkul mbir mu nga ne rek mbir mu rafet ndaxte lu rafet lu taaru rek lañu bëgg dinañ xool neneen doxalee nu bokk tëkk façon bi nga xam ne rek ñu ngi koy doxalee dontale nag dañuy jàpp ne le 4 avril boobee sénégalais yëpp ñoom ñoo si bokk yam wante kat gis nañ ne mbir mi kat demeewul noonu ndaxte kat bu fekkente ne woon sénégalais yëpp ñoom ñoo sa bokk yam kon dina jox àq ak yelleefu sénégalais yi nga xam ne rek 4 avril bu nekk la jiitu woon dañ daan feetu ba mu neex torop ñëpp daal di kontaan wante nag bile yoon ak rëjërëji yëngu-yëngu jamono yi nga xam ne rek moom la tombeel daal di alamaan lu toll ci deux cent mille ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko te ni ñuy waxee ak yéen yenn ci ay doomi aadama nekk ci lalu hôpital ñenn ñu ñoom it jaare fa daal di dugg ci biir bàmmeel ñeneen ñi sa des amee ay gaañu gaañu ñenn ñetti seeni place jot a yàqu ci jamono bu nga xam ne nee dañuy célébrer ne rek xumbaay ak mbumbaay la ñuy daal di wane armée ak seen doole seen am kàttan ci biir réew mi ne kat loole bu fekkente ne nag ko am xel nga nekk ca biir réew moomee war nga am beneen taxawaay bu nga xam ne rek war nga koo am te muy gisin bu nga xam ne rek ñëpp ñoo ko war a bokk kënekat ñoom ñoo ñi nga xam ne nag ñooy wane doole boobee ca 4 avril boobee waroon nañ koo mën a jëmale feneen fudul seen askanu réew nekkat ay sénégalais rek ñoom ñoo fi nekk wante bu ñu xoolee dañuy gis ne sénégalais yi ñoom ñooy tourner di toroxal ñi nga xam ne rek ñoom ñooy sénégalais yi ba bisi mujj gis nañ ko ki nga xam ne rek moom mooy Mame Mbaye Niang gannaaw nag bi nga xam ne rek moom amal na ko di féete li nga xam ne moom mooy victoire am gannaaw nag bi ko yoon daal di jox dëgg ci digganteem ak ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ñu ne kat loolee tamit doy na li nga xam ne moom mooy naqar ak tiis kon nag ki nga xam ne rek da kay koy woo pour ñu juboo li tax ngeen di juboo yow yaa ko war a a dox ndaxte kat jàmm kenn nit rek mënu koo indi il faut que ñaari nit nit ñoo ko mën a kon nag bu bele yoon wala sax bele kalan daal di wootee li nga xam ne rek moom mooy ay ka ca des woote li nga xam ne moom mooy jàmm su booba mën nañ ne kiy woote aw ay mën naa dikk fekk si ki nga xam ne rek day woote jàmm wantekat kat du ma dikk nekkat danga may woo si jàmm yor ak leget bëgg ma say nax pour bëgg ma ñëw sëgg si nga daal di fa yéene continuer li nga xam ne rek moom mooy say nax donte na ko olof njaay day faral di wax ne legeti kase naxul bay wante waa yeewi askan wi ñoom jota xam xamle ne kat jamono yi ñu toll nii nguur da leen a nax ndaxte kat gannaaw ba ñu utiliser li nga xam ne moom mooy doole ci seen kaw boobu ba tey rek gisuñu lenn loo xam ne rek lu leen tëla nekkat dañoo daal di mujj tourné mel ne ñu nga xam ne rek dañ leen di naqaral bi si mujj di invitation bi nga xam ne rek invité nañ leen ko daal leen di wax nag ñu fas yéene dem ci fi nga xam ne rek moom mooy foofale ca 4 euh, avril ca l'indépendance bi nga xam ne rek ñi ngi koy fas yéene amal niki la 4 avril loole nag nekk xam ne rek nga xam ne ñoom ñooy waa yeewi askan wi nee nañ duñu ko seetaan te tamit fa suñu yéenee dem fa suñu yéenee euh, assister fa suñu yéenee dem te tamit fa suñu yéenee assister li nga xam ne rek moom mooy le 4 avril boobee euh, kon nag tey senegal war naa am beneen taxawaay bu nga xam ne rek daf koy taxaw fii ci biir réew mi li ko waral nag du lenn lu dul saa su nekk rek ñuy jéem li nga xam ne rek moom mooy nax ak li nga xam ne rek moom mooy jéem a bundu xataal ñennate ci ñi nga xam ne rek dañoo jàppoon ne rek ay nit lañ yu nga xam ne rek dañoo fonk seen bopp te tamit bëgg li nga xam ne rek moom mooy valeur ci biir réew mi wante kat bu ñu xoolee dañuy gis ne rek tout le temps France day daal di xaddeen comme ni nga xam ne rek noonu lañ koy faral di waxee nekkat ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ëpp doole di faral di not ñi nga xam ne rek dañoo néew kàttan loolee kat nekk mbir mu nga xam ne nag naqari na lool ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa yi Askan Wi wante kat ñoom ci seen biir sax gannaaw nag ndaje mi nga xam ne rek jot nañ koo amal yamal yemaluñ mbir mi ci seen biir képp wante nag génnee nañ ko ba sax joxe ordre ci képp ku nga xam ne rek maanaam yaa ngi tënku ci Yewwi Askan Wi mayuñu la sax liberté ngay dem naan da ngay assister lii di 4 avril bi ci invitation boobee nga xam ne rek daal nañ koy jot li ko waral nag nekkul ne tamit ñàkk teggin la wala sax nekkul ne ñàkk am yitte ci seenum réew la nekkat ñoom ñoo gën a bëgg seen réew kuy bëgg seen réew wante kat dañoo gis ne jamono yu ñu toll nii li nga xam ne moom lay jaay doole da nga koy wan ne ko kat même boo ma ëppee doole am na ku la ëpp doole nekkat naqarlu gi mën naa yam ci lamiñ wante tamit ay cër bokk na ci li nga xam ne tamit da koy mottali wala sax nga daal di koy wax ci li nga xam ne rek moom mooy aw lamiñ donte ne nag jamono yi ñu toll nii ñi nga xam ne ñoom ñooy waa yeewi passé nañ fi nga xam ne rek moom mooy doole nekkat ki ngay jaamaar lool te mu ëpp la doole lool yor li nga xam ne moom mooy arme te yow yoroo ko nekkat da nga xam sa bopp moo tax nag ñu daal di fas yéene tourné ne rek li nga xam ne moom mooy xeex bi daal di koy jëmal nag ci li nga xam ne rek moom mooy seeni kàddu di leen di jaajëfal leen wax ngeen di wéy di abonné ba beneen yoon